Carlo Ancelotti weddiwul Aladji Malick TV ci information yu wér te wóor yi mu fi jàllale woon démb ba tey di xam ni Arda Güler dina bokk ci ñuy jongante match boobee suus fet am na Arda Güler mi ngi ci biir équipe bi tey ñu baree bari doon ko ñaanal temps de jeu am na ko bu baax a baax kon li des yaakaar naa ne moom mii di Arda Güler uh, soriwut ak kii di Bassirou jaxeer Diomaye fay notre cher président bi nga xam ne jël nañ lépp jox ko ko liggéey rek ko te ko dese kon Arda Güler liggéey rek ko ko ci match bi nga xam ne ci kanam tuuti bu vingt heures jotee fii ci heure Sénégal vingt et Euh, fële ca Europe li di maanaam Espagne match ba dana am wala Europe Angleterre match ba dana am ñu gis ni nag euh, compo officiel bi am na solo abonnement yi bu leen des ginnaaw kan yi a waxoon moo ca ne ah, kii di ah, Thibaut Courtois Fede Valverde moo football latéral droite Asensio mook Antonio Rudiger ñoom ñaar ñoo nekk ci li leen di axe central bi commentaire yi nag d'accordun Mendy mi ma indi woon waaye heureusement tamit Mendy <laughs> moom mii di paa bi ak doomam bàyyi na fi Mendy mu nekk latéral gauche donte supporters yu bari ñi ngi naqarlu googee euh, googee titulaire ni ma ko waxee léegi maanaam moom moomee di euh, Fernand Mendy digg militaire bi nag 4-4-2 bi teg kii di Bellingham moo ne ci côté càmmoñ bi ci militaire bi fekk. kii di Edouard Camavinga moom it mi ci milieu terrain bi Luka Modric moom bokk na ci ñi nga xam ni ñooy dimbali waa bi keneen koo xam ne gis nañ ko fa nag mu nekk Arda Güler euh, la supporters yi moom gone yi koo bëgg mooy gone yi ndaw yi nekk ay fans kese dong moom rek moom la booy topp keneen koo xam ne nag ma nga ca waaye ca milieu terrain ba ñu am fa ñaari footballkat marocain bi di ki nga xam ne mooy Brahim Diaz moom mi ngi ci biir lii attaque bi waaye yaakaar tey ji ginnaaw yàlla ci mere ngay Mbappé Kylian côté càmmoñ bi équipe bii de Real Madrid am teg na ko bu ngeen ci d'accordé ci commentaire yi ngeen wax bu ngeen d'accordul tamit lu tax d'accordu leen ngeen leeral ma ko bu baax a baax waaye li leer ba leer mooy Arda Güler moom mi ngi ci biir Mendy mi ngi ci biir ki la di maanaam Thibaut Courtois bu njëkk moom it mi ngi ci biir li la di camp yi taxaw war a